غافر

bu sëñ Sidi Kunta mi toogee rek Ndiassane. nee jóge Ndiassane. sëñ Souleymane Seck toog nii joge cere ba. sëñ Souleymane Seck toog nii jóge cere waa kër maam Limaamu Laay Laay ñu nga nee toog. nee excès gu ñu joxante ak ay loxo sax. waaye dama bëgg rek. waaye nee dama bëgg rek man Cheikh Moutalla. bokk yii fi ñëw. bokk ni. njabootu maam Limaamu Laay teew nag. nee nag ñëw nag toog. xaritu Cheikh Bass Abdoul Khader. ku xam Cheikh Bass Abdoul Khader. ah. dafa yor yanu ni sëñ Bassirou dafa yor yanu mag. yanu mag nag du woyof. nee nag du woyof. waaye nag du diis. waaye nag it nag yan ba nu diis. mag bu nee bu la mag yenee. mag mi la yen moo lay téeñal dëgg la. moo tax yan bi du woyof. moo tax yan bi du woyof. waaye du diisit. waaye it nag du diisit nag. barki démb nag. nee barki démb nag. mu waxoon ma day ñëw ci màggal mu waxoon ma moom Cheikh Bassir day ñëw ci màggal gi. at nee at mu jot itam nag. loolu mooy bëgg-bëggam. loolu rek Mbàkke mooy bëgg-bëggam. waaye dama koy wax ni ko. waaye nag dama koy wax ni ko. mënuma wax ñaari wax. mënuma wax ñaari wax. dama dem ci sëñ Muntaxa. dama dem ni ko dama bëgg ñu sakkanal la ñu koy def. ñu ko mane. ni ko mane. te bañ koo defee. te ko bëggee. ne man ba ma waxee loolu Cheikh Mountakha. kon ca ni. kon ca laa xame ni. lu wàññiku ci yéen lu wàññiku ci yéen bi. dana tege ci seen dina tege ci yéen ñii toog ci seen i mbagg. kon sëñ Bass Abdou Khadre mënatul am jot dem fépp. kon sëñ Bass yow nag mënatul am jot dem fépp. ñu tase Mbacke Kajoor. nee nu day it Kajoor. mu jëfandikoo ci man. mu jëfandikoo ci man. jikko yu rafet. jikko wax ma lu rafet. wax ma lu rafet. seedeel ma lu rafet. dina ko nag doomu sëñ Abdou Xaadir la moom Xaadimu Rasuul te nag fa mu toogoon. kilifa dina fa dina fa toog. yàlla dogal. yàlla dogal. yàlla sëñ bi ne mu yeggal waaw yàlla dogal. mu ma dinaa ñëw. mu ni ma yaakaar naa dinaa ñëw. ma ne daal. ma ne daal. dama bëggoon daal. damaa bëggoon daal. bu yittee sëñ bi taxawee rek. bu yittee sëñ bi taxawee demal nu ca ñun ñëpp. nu ca. def ci yitte yu ndaw yi. loolaa tax. nee loolu moo tax. ba mu demee nag. ba mu demee. ba war a yónnee. mu woo sëñ Mourtada Bousso. nee mu woo sëñ Mourtada Bousso mi toog. moo sëñ Murtada moo sëñ Murtada Lo. ni leen ah yéen kat dama leen di yónni. tax nag. li tax ma di leen yónni. yéen ay Murtada ngeen. ñii ay Murtada ngeen. <laughs> ndeysaan man ngeen di liggéeyal. man ngeen di liggéeyal. noo bokk service bi. bi. waaye bu ngeen ma demalee ci sama waaj waaye nag bu ngeen ma demalee ci sama waaj nag. ndax xam naa leen sëq. ak li ñuy liggéey ñoom ñaar. ne li nee nag mel na ne li ci gën a yéeme. ñii mu yónni. ak moom mee jóge ci Abdoulaye Ka. monsieur le maire. am seen diggante. ne moo tax coordination bi mën mel nii. nee nag su ko defee rek. nee maa ngi wax sax Abdou Lahad Ka. waaye ñaar laa waroon wax. waroon na maa wax Cheikh Abdou Lahad Ka. wala ma wax ah monsieur le maire monsieur Sall de la ville. ndax sëñ Mor Mbaye am lu mu ma jàngalal. ne dama wax ni ma tur yi dem nit. ku ñuy woow tur yi la dem nañ la ko wooyee ndax kuy wàññi nit tur yooyu léegi mu mel ni da nga ko yéenewul tur yooyu dëgg la nee na nit di daj ba dégg sëñ bi boo ko bëggee xam tàmbaleel ca bañ koy wax baax ca daara ja ba kere muy dégg sëñ bi tey la mu du ko wax koo fi dégg ministre nga. Kambileel. ca bañ ko yóbbu école. ba mu jeexal. xaw naa tas ko ne aji mi nga yomb ak alaaji sax. bala ko kenn doon nag. danga nga rafle lool. ne kon tur yooyu nag. ne Amar di ne yu jara fonk la. ne mi ngi leen di dalal bu baax. xam na ne xam na ni seen lépp. sëñ Mourtala la. a yabal. ndax ku ñu mën a yabal. ak ku ñu mën a doon ak ku ñu mën ci biir kër gi lañ bokk. suñu dund gépp. suñu dund gépp. ko moom sëñ Mourtala ko moom. suñu faatu yi sëñ Mourtala ko moom. loolu yi sëñ Bas moom la xam. moo tax moo tax. mu tànn ñu tudd Moutala. boole leen ku tudd Abdou Khader. boole leen ku tudd Abdou Khader. ndax moom itam. lépp sëñ Abdou Khader. ndax xam na sëñ Abdou Khader. ndax xam na sëñ Abdou Khader. lan moo leen boole lan moo leen la sëñ euh, sëñ Bas xam. loolu la sëñ Bas xam. moo tax mu yabal ñu fi. moo tax mu yabal ñu. waaye yabaluñu fi ngir. waaye yabaluñu fi ngir. ay délégation dañoo yabal. nga xam ne suñu kër moo xewle. nga xam ne suñu kër moo xewle. te bëgg na waa kër gi bëgg. mu toll ñu dëkk ci biir kër gi yebal si leen ci biir kër gi kaddu yi nag neen woon ne kaddu euh, doxul leen moom yenn kaddu ñu wax ko Mourtala ngeen tudd sëñ Mourtala rek ngeen am dama leen teewal bi sëñ Mourtala loolu nag na ah jërëjëf Bousso Cheikh bi muhtadi Mouhamadul Falilu. moom Serigne Mbacke Soxna Lo. ngi lay nuyu. mi te di la siyaare. te di la siyaare. yu bàyyi koo ci magam sëriñam di la bàyyi jottali sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Mohamed Mbacke sëriñ mi nga xam ne moo toog jataayib sëriñ Mbacke Soxna Lo moom moo ko fi yebal Cheikh Moustapha moomu moo ko fi yebal boole ko ak nun boole ko ak nun wax ne ko na ko jaar ci sëriñ xaadim wax ne ko na nga jaar ci sëriñ xaadim moom sëriñ mu gumba moom sëriñ gumba amar moom sëriñ gumba amar mu ànd ak moom mu ànd ak moom ñëw ci yow ñëw ci yow ndokkeel la ci bis bi ndokkeel la ci bis bi yaag njabootu sëriñ moor yëpp yaag mboolem ku sëñ moor faaru jaboote di leen sant itam di leen sant itam di leen gërëm bu baax di leen gërëm bu baax ci euh, di leen ginaaw bi mu leen ndokkeelee ci bis bi. ginnaaw bi mu leen ndokkeelee ci bis ci sàmm gi nga xam ne yéen a ngi koy bokk di sàmm. ci sàmm gi nga xam ne yéen a ngi koy bokk di sàmm. ndono yi nga xam ne moom la fi mag ñi bàyyi woon. ndono li nga xam ne moom la fi mag ñu baax ñu bàyyi woon. te ko tàmbalee ci Serigne Mor. te li ko tàmbalee ci Serigne Mor. ba jaar ci xalifaam yi nga xam ne jaar nañ fi ba egsi ci yow. ba jaar ci mboolem ay xalifaam yi fi jaar ba egsi ci yow sëñ kenn ku nekk nam ko doon doxalee. kenn ku ko ko rafetal. di ko rafetal. loolu bi megsee ci yow. loolu bi megsee ci yow. lépp da nga koo yokk. lépp amar da nga koo yokk. kon nag. kon nag. sëriñ bi nee na. sëriñ bi nee na. ngi leen di siyaare ci bis bi. mi leen di siyaare ci bis bi. mi ngi leen di jottali ay ñaan. mi moom itam mi ngi sàkku itam ay ñaan. nee itam mi ngi sàkku ay ñaan. ci bis bi nga xam ne. ci bis bi nga xam ne. dafa bokk ci bis yi ñuy defal mag ñi. dafa bokk ci bis yi ñuy defal mag ñi. te sëriñ Serigne Touba li mu yoroon. te Serigne Touba li jëlee ko ci sunu borom ci daraje yonent bi. ci ngërëmul sunu borom ci dajale yonent bi. loolu def ko kër gu mag bu nekk. loolu la ko kër gu mag bu ne. la cay sa wàll sëriñ bi jox na la ko. la cay sa wàll sëriñ bi jox na la ko. fu ñu ko fay defee fu nekk itam. fu ñu ko fay defee fu ne itam. du ko wuute. du ko wuute. kon nag. kon nag. sëriñ Fallou nee na. sëriñ Fallou nee na sëñ Moutala. ginnaaw cant yi ak ngërëm yi. ginnaaw cant yi ak ngërëm yi. Euh, mi ngi ñaan bu baax. mi ngi ñaan bu baax. waaye mi ngi sàkku ay ñaan bu baax. waaye nag mi ngi sàkku ay ñaan. mi ngi nuyu itam mbokk yi mu fekk yëpp. mi ngi nuyu mbokk yi mu fekk yëpp. di sant ñëpp. di sant ñëpp. di gërëm ñëpp. di gërëm ñëpp. jërëjën jëf jërëjën jëf. noo bokk kër gi. xam nañ lu mu fi doon it. xam nañ itam li mu fi doon. moom mii de. moom baa sëriñ mii. mu teewaloon sëñ Mbacke Mouhamed. bu teewaloon Serigne Mbacke Mouhamed. wala mu teewal Serigne Moustapha Mouhamed. wala mu teewal Serigne Moustapha Mouhamed. mu doy sëkk. mu doy sëkk. waaye sëñ bi moom. waaye sëriñ bi moom. muy sëñ Moustapha. muy Cheikh moo Moustapha. keroog bi sëñ Gumba deme keroog bi sëriñ Gumba deme ñu woo ko ñu woo ko téléphone. yëgal ko ko. yëgal ko ko. yàlla dogal. yàlla dogal. sëriñ Cheikh. sëriñ Cheikh. bi sëñ Mor yaramam sutaatee. bi sëriñ Mor yëgee ak eh, ñàkk sawar ci yaram wi. Serigne Cheikh a ko jëlee si fii. Serigne Cheikh moo ko jëlee si fii. yóbbu ko Sicabri 10. yóbbu ko Dakar Sicabri 10. kër ga fa nekk. kër ga fa nekk. néeg ba ca suuf. néeg ba ca suuf. fa la ko dalaloon. fa la Serigne dal dalaloon Serigne Gumba. Serigne Mor Faaruma. Serigne Mor Faaruma. ba benn bis mu woolu ko. ba benn bis mu woolu ko. mu ne ko nu yaram wi def. mu ne ko sëriñ Mor nu yaram wi def. ah man de danga maa woon ma ñëw rek xaw ma sax man daanaka ci loolu dara. mu ne ko ah, man de yaaram danga maa woo rek ma ñëw si xaw ma sax daanaka dara. mu ne xalaas. ah sëriñ Cheikh Fall ma ne xalaas. yàlla dogal sëñ Gumba ñëw fa. yàlla dogal sëriñ Gumba ñëw fa. ak sëñ Amadou Matu. ak sëñ Amadou Matu. sëñ Cheikh jox leen benn commune car. sëriñ Cheikh jox leen benn commune car. ne nañ ko andi fii Gàddeyal. ne le andi leen ko fii ci Gàddeyal. boole ca sëriñ. boole ci ab sëriñ. ci waa këram yooyu sant Saar kenn la ci. ci waa këram yooyu sant Saar kenn la ci. boo demee nag bul ñëw. ni ko nag boo demee bul ñëw. yow toogal foofu rek. yow toogal foofu rek. su yàlla dogalee def la ca gën. su yàlla dogalee def la ca gën. jullee ko. jullee mu ñëw toog. mu ñëw toog. bala xew-xew. bala xew-xew. mu jullee ko. kon dafa mel ni. kon dafa mel ne. am na lu ko sëñ bi xool. am na lu ko sëriñ bi xool. ba moom rek moo ko war a tiim. ba moom rek moom sëñ bi Saar moo war a tiim sëriñ bi. moo ko jullee. moo ko jullee. sëñ Cheikh ne. sëriñ Cheikh it ne. bu génnee àdduna. bu génnee àdduna. nañ ko denc fii. nañu ko denc fii. ndax damay bañ. ndax damay bañ. dëkk bi raaf. dëkk bi raaf. waaye yaakaar naa ni. waaye yaakaar naa ni. bañ ko fi dencee ba tey. bañu ko fi dencee ba tey. ci ndigalam. ci ndigalu sëriñ Cheikh Fatma. raaf amu fi. raaf amu fi. kër sax toxoowu fi ñaare. kër sax toxoowu fi ñaare. mbaa kër gu fi toxoo it. mbaa kër gu fi toxoo itam. yaa ngi dellu siwaat. yaa ngi dellu siwaat. te kër ga nga fi jëkkoon a am. te kër ga nga fi jëkkoon a am. appel sax ñëw na fi. appel sax ñëw na fi. laaj ko ba sanc ko. laaj ko ba sanc ko. kon mel na ni. kon mel na ni. la Serigne Cheikh wax am na. la Serigne Cheikh Fatma waxoon am na. Serigne Gumba génnee àdduna. bi Serigne Gumba génnee àdduna. ñu yëgal ko sëñ Moustapha. ñu yëgal ko Serigne Moustapha. sëñ Moustapha daf ne mooy ñëw. Serigne Moustapha def ne man maay ñëw. néewul nañ ma ko andil de. déedéet néewul ma ko andil de. néewu ma ko it fii laa koy denc. néewu ko itam fii laay denc sëñ Gumba. donte lee moo nekkoon ci sunu xel. donte moo ne woon ci sunu xel. moom lañu bëgg. moom lañu bëgg. mu waxoon leneen. mu waxoon ne. loolu la bu waxoon leneen. bu waxoon leneen. nu def la mu def la mu def la mu wax. waaye sëñ Moustapha dana cëpp fii. julleel ko boppam. julleel ko boppam. ñu rob ko. ñu rob ko. ba noppee. ba ñu noppee. ma jël addiya. ma jël addiya. jox ko sëñ xaadim mii. jox ko sëñ xaadim mii. ko kii dey. ni ko yaay sëriñam. yaay sëriñam. baaye moo la ko jébbaloon. baaye moo la ko jébbaloon. ak njaboot gu sew gi. ak njaboot gu sew gi. waaye maay seen kilifa. waaye maay seen kilifa. jébbalaat naa la ko. jébbalaat naa la sëriñ xaadim. lépp joxaat naa la ko. lépp joxaat naa la ko. boo booy digle nag. booy digle nag. digaloo ko moom. digaloo ko moom sëñ Xaadim. booy santaane. santoo ko santoo ko. da nga koy wax rek. da koy wax rek. mu ñëw wax ma mu ñëw wax ma. ñu ànd def ñu ànd def. li nga bëgg li nga bëgg. loolu moo fi nekk sëñ bi. loolu Mbàkke mooy li fi nekk. sama. amiin Mbàkke Balla. amiin Mbàkke. jërëjëf Balla Issa. lima Alaaji Rëy Tàll ci man kenn ci man sori ci man lool sori toog ñaari fan te waxuñu duñu toog ñaari fan man ak moom te waxuñu muy ku bëgg way juróom muy ku bëgg wari juróom waaye ku Cheikh Bass Abdou Khadir fonk waaye nag ku Cheikh Bass Abdou Khadir fonk muy liggéeykat bu mag. jumaay Touba de. jumaay Touba ji. karo fa seen. karo bu ngeen fa seen. ci kaw ba ci suuf. Cheikh mii moo ko fa def ewaay. Eh mu doon koo xam ne. Cheikh Tall nag doon koo xam ne. taxaw taxawaay bu mat sëkk. taxaw na taxawaay bu mat sëkk. jox na cër. dar man ko lool. ndax sëñ Aliou Amar. ndax sëriñ Aliou Amar. ak baayam. ak baayam. fi ñu jaar. fi ñu jaar. kawe lool. bari na lool. kawe na lool. kawe na lool. Cheikh euh, Reytal nag. Rey Jëf Taal. lu am. lu mu am. nit ñi la ko jox. ko jox. danaan fekk genn màggal gu mel nii rek. Alaaji Rey danaan mu xotti ay yéere. def ay enveloppe. bu ñëwee. ni ah damay teral imaam damay teral borom dëkk damay teral jànkat yi damay teral ñoom Cheikh Mbacke moom nun géwal yi loolu rek la sa daan def moo tax nag yow Cheikh bi la yàlla dimbalee nga tabax benn immeuble ca Dakar tuddee immeuble ba immeuble Rey Taal Amar ne su ma ko tuddee noonu. ah Darmanko yëpp danañu ci gis seen bopp. kon moom mii. kon yow Cheikh. sunu kër yii de. sunu kër yii de. muy jéemul. muy jéemul. muy gardiyel fi yëngu. lu yëngu. Cheikh sa loxo nga ci biir yaa nga ci biir. waaye sëñ Bass Abdou Khadir de. waaye li ko Cheikh Sidi Makhtar liggéeyloo. bala jàpp na ne bu ci àndul ak Cheikh. jàpp na ne bu ci àndul ak Cheikh Tall. ci am lam ca bëgg. Cheikh moo ñëw léegi. Cheikh yaa agsi léegi. ma lay nuyoole ak Nasirou Dine Ahmed Saloum Dieng. di kenn ci Serigne Bass moom Serigne Abdou Khadre. Serigne Mamour Mbacke moom Cheikh Mouhamadul Moutada góor yàlla léegi la fi jógee. Serigne falu Mbacké député à l'Assemblée nationale président conseil régional et départemental di rakki sëñ Moustapha Mohamed léegi la fi ñëw ci turu magam ju baax nga xam ne moom la ñu xoolee Serigne Mbacké. Serigne Souleymane Seck bu Thiénaba njabootug maam Amary Ndaak léegi lu ñu fi jógee. Sidi Lamine Kounta. Sidi Lamine Kounta. di njabootu Njaasaan léegi la fi jóge kon délégation yi bari na. mu mel ne délégation yi bari nañu. Alla Taal sëriñ bi nee na mi ngi lay sant bu baax. mboolem koo dégg ñu tuddi ko fi ku ne. ab cëram moo ko mag. ab cëram moo ko may. moo ko mag. moo ko mag. dañuy wax rek. dañuy wax rek. ba yegg ci jëfi teyam. ba wax ci yegg ci jëfi keneen. jëfi tayam jëfi tayam waaye cër ba waaye cër ba moo andi jëf ji moo andi jëf ji jërëjëf Amar